Europe États-Unis Canada Caraïbes ak li ko wër jox nañu cër sargal nañu ku lu koo xam ne jamono ji mi ngi toog di ñu seetaan a diwaan ak bër bu mën ci nekk rek jàkkaarloog télé bi moomal boppam di ko safoo di ko ndamoo di ko tiitaroo mu ni di Walf TV télévision askan wi la télévision du lu baat ñu lu baat cant ak ngërëm ñeel ko di ko ñaanal àllarba bu jàmm ak salaam waaye kenn dul jàmm ak salaam également à notre compagnie soxna Thiaba moo doon yoo noonu euh, fii góog ña faree ci wàllu xarale gi fas yéene ñu gunge euh, fii ba ba ñuy jeexal di midi à 12h bu soobee ki koy may di borom bi euh, subhanahu wa taala dooree ko si yaayu xale yi di ajaratu Penda Diallo Guèye Nioro Bassi ko Alaaji Adama mi ngi fegoo kookee di Jacques eh, Gabriel Prera mbokk mi yaay Salif Sow pour lu aar na borom nag yeeg meew yi cant ak ngërëm ko moom itam ñu wax leen programme eh, yor yoru àllarba tey ji naka la nam ma tëddee ñaar si ay pàcc la eh, bi si jiitu mooy waxtaanu ay bés bi ma am mbégte ak bànneex bu yaatu bi si ànd ak moom ni ma ko baaxoo di ko def ak moom altine bala xamee si pàcc bu njëkk bi waxtu wi di kilifa doomu reefan rafetlu xam-xamam Baye Mor Jona Dali Bouga Dakar ak Manjuk ñaareelu pàcc li pàcc lu mujj li mooy del teew Samba Jaxate dala munte réveil am sonewul dafa biddanti euh, maanaam si gàttal kon du mën a dikk ñu euh, nangul ko ko bu baax a baax waaye suñu gan moo nam nekk moo Talla Kassé euh, di jànkatu xasida di taalibe sëñ Saliou Mbacke waaye itam njabootu Cheikhul Khadim yëpp da si ànd ak ñoom ndax cofeel gi ñu bi mu am si ñoom ñëpp kon kooku moo nam nekk suñu gan si ñaareelu pàcc li pàcc lu mujj li ndax ku ne xam na ni wàccaayu màggalu Poroxaan màggalu soxna jaaratulaax yi di kenn jigéen ju am màggal subal incha allah yàlla nañu si bakken yóbbu ak jàmm ak salaam ñu fekkee ko te tal ko kenn bañ a wutee Baye Mor asalaamualeykum. waaleykum salaam aouzu billahi min aseytaan rajim fa inni uhizuha bika wa zuriyataha min aseytaan rajim rabbi aouzu bika min hamasati sayatin wa aouzu bika rabbin yahdurun bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwata illa billahi alil azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sadi lisaani nawir janaani safil amaani wa sid baraay asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw soxna Thiaba ñoo ngi lay ziar. jëlloo ziar bi. di la ñaanal tawfeex. allahumma amiin. Ah, di wax ne ni nga def ni moom macha allah. ah dama waaw yaay faale rek tabarkalla. <laughs> walaay ndeysaan. jërëjëf macha allah jërëjëf macha allah. merci beaucoup. Ah, di la ñaanal tawfeex yaa ak sa borom kër yàlla may leen wér. may leen gudd fan. amiin yaa balaa ah, yir leen aar leen. ci mhm. jafe-jafe yi àdduna. Mhm. amiin waaye noonu di ko ñaanal ajaratu Penda Jalo Guèye. Mhm. moom ak borom këram Alaaji Adama Guèye. yal na yàlla eh, Gabriel Pereira ñoo ngi koy ñaanal Senghor Alaaji Modou Fall Ibrahima Mbaye Alioune Diop ñu ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ci liggéey bu rafet bi nga xam ne nii ñu ngi koy ànd ak ñun mhm. waaye di ziar kilifa diine yi di leen ñaanal gudd fan ak weer mhm. ba yéen bi tegu seen kaw ñu mën ko yóbbu fu kawe seen njort waaye di ñaanal kilifa aada yi yàlla mhm. may leen weer ak kattan bi yaakaar bi am ci ñoom bañ a tas waaye di ziar ñi nga xam ne ñooy ànd ñun ci waxtu yi fu ñu mën a nekk ci réew mi bitim réew di ànd ak ñun ci émission bi di yor yor ñoo ngi di ñaanal kendalu jàmm lépp lu ñu di ci yënguti yàlla na ci saa borom ba def barke waaye itam jàmm ak xeewal ak naataange sax ci réew mi mhm. waaye doo wér àdduna fu ci waaye mën a nekk rek yàlla defal la ci sutura mhm. ñoo ngi ziar ñëpp di ah. leen balwaa yal na yàlla nangu ziar yal nañu yàlla boole jéggal gannaaw àq dafa sew kon di ko wax saa su ne itam lu baax la euh, ji ñu ne sarax si kër jàmbur yi te duñu tàggoo ne sarax si ni ay biir salon te duñu tàggoo moo xam si loolu mënti di fekk wax dëgg nag yàlla moo xam am ñu nangu am ñu nangul kon ñuy jéggalu mm-hmm. da ngay def ñi da bayam si koo xam ne amaana mooy loolu kon ñuy jéggalu bu baax a baax si ñooñee ah. ah, démb nag daloon lañ fi ki nga xam ne moo di Laye Ndiaye comédien artiste comédien politicien casquette ba bari na ñu mm-hmm. daloon ko ko en tant que père de famille bari na loo xam ne waxtaane woon nañu ko bien que nag des am na point yoo xam ne d'accord si ak ñun mais noonu rek la mhm. loolu itam moom moo di waxtaan ñu gërëm ko jaajëfal ko bu baax a baax te itam fidèle téléspectateur Walf TV la nag xam naa ne sax jamono ji mi ngi teewlu di ko nuyu di nuyu soxnaam bu baax a baax mhm. waaw euh, di ko jaajëfal di euh, rafetlu itam ay xalaatam ndax xam mhm. nga comme ni ñuy wax waxtaan la euh, bu fekkente ne nit ki ñëw na andi te xalaat boobu itam Euh, xëy na wéetu ci am na ñu bëri ñu mu ko bokkal loolu mooy penc mi mhm. ku ci nekk dañ koy waxtaane ku ci nekk la nga xalaat am nga droit wax sa gis-gis sa am nga droit ne nii laa gisee mhm. xëy na moom dafa gisee ne euh, euh, xale bi ak ay famem mhm. peut foofu la toor bi nekk mhm. waaw ñeneen itam gis ne mhm. waa ji euh, ñëwoon di labat soxna si foofu la toor bi nekk loolu nag mooy li ñuy waxtaane ba trouvé ci rek loo xamante ne ni ñiy lu dinañ ci jël lan lañ ci mën a tànn parce que nag li ñuy wax waxuñu ko rek pour suñu bopp kese mais dañu koy wax pour ñëpp itam waa réew ku ci nekk ndax bu dara xewee te doon loo xamante ne ni rafetul ci anam bi muy amee donte kon buñ ne léeg-léeg mën naa doon loo xam ne suñu aada ak suñu kii bokk ci mm-hmm. ndax bu dee ni ñi nekk ci bitim réew xam nañ ne foofa loolu du fa xibaar mhm. nga wax ne la bu jigéen bi dafa majeur mu dem ànd ak faram mhm. loolu moom euh, du xibaar boo ko mhm. waxee dañ du doon dara ci ñoom mais nag fii bu fekkente ne xale bu jigéen bi dafa génn ànd ak euh, copainam dem loolu moom du même bu fekkente ne sax dafa nekk muskalaf moo xamante ne nii dem na ba tollu fen fi sax du tax ñu rafetlu ko copain mooy ki muy bëgganteel mooy ki muy bëgganteel ah. waaw kay waaw ki muy génnal <laughs> kon kon yooyu nag mooy doon ci yàlla xaw ma nag ana génn dem fan ki muy génnal génn jëm fan. waaw xam nga euh, baat bi dafa. baat boobu doy na waar de. ci baatu dox aan dox aan boobu ñoon doon def nga xam ne yéenay ànd dox moo tax ñu dal di koy dagg. pour que mm. wax ji gën a gàtt ndax gis nga àdduna wax ji bu guddee léeg li gën a gàtt dañ koy jël. moo tax ñu dal di ne euh, génn comme dox ànd am na kuy dox am na foo jëm. Mm-hmm. ànd bi ngeen di ànd yéen ñaar ko ànd. Mm-hmm. mooy lan kon mbëggeel dafa nekk seen diggante. Mm-hmm. waaye nag loolu. xoolante ay jikko la xoolante ku ci nekk mhm. mën a xam euh, sa waay ban température la amee nan laa mën a ànd ak moom sa sox sa coro bi ban température la amee mhm. naka laa mën a fexe boo mën ko adapté ci sama système mhm. par bu ngeen demee ba takk sëy boobu noonu ku nekk mën a xam euh, sa morom li mu bëgg ak li mu bañ xam fa nga xam ne fa nga ko war a mën a jaar ba jafe-jafe da am seen diggante kon loolu moo moo ci jublu woon ci ànd boobu noonu wante nag dox ànd bi bokku dek génn nag mm-hmm. génn seeni i ki wayjur génn seen i famille mm-hmm. dem foo xam ne xamuñu ci lu ngeen nekk mm-hmm. xamuñu ci lu ngeen nekk loolu moom taxutoo ñuy wax génn ak génn bi nga xam ne itam day fekk yéen ñaar rek bëggante ngeen te dara lalu ko waaw mu nekk lu sincère kenn waaw maanaam lu sincère dara raxu ci waaw dara raxu ci daal maanaam waaw loolu itam dafay doon beneen mbir boo xamante ne nii ci jamono ji ñu toll nii ak eh, lii ngay xam ne yaa ngi koy gis mën koo gaaw a déggal loolu ci kaw ni nga ko mën a déggale rek mooy eh, nga gis diggante bi ànd bi di am fu mu jógee mhm. maanaam xëy rek bëgg mhm. xëy rek bëgg fàtte la nga amoon lépp fàtte la nga xamoon lépp mhm. loolu day yomb tuuma dal ci ndax lépp loo gis itam nit ki di ci avancé parce que bu ñu wax dox ànd boobu mooy eh, xam nga léeg-léeg nga ne nit dama la bëgg mu ne kañ est nga ma xam ba di ma bëgg Euh, question la. Mhm. waaw mais mën na la gis ci sa jëm nii. non immédiatement mën na nekk sax lu mën a nekk la. waaw moom mooy la mooy ak fen fii xam nga dañ ne wóolu. Mhm. da ngay yàgg ki nit ki. moo yee nag laaj la loolu parce que foog mu seetlu la moom itam laaj laaj ko bu ko defee moom mu wax ko an la la koy wax parce que tam bëgg bëgg am na si saasa waaye itam xemme bi itam lu am la. jërëjëf mu ngi bëgg a teqantal sa mbëggeel bi. ban xeetu mbëggeel la ban xeetu mbëggeel la. léegi nag foofu sa kaddu la soxla parce que kaddu googu nga koy jëkk a tontu dafa am solo ci moom uh-huh. bu élégué mooy nekk arme bi nga xam ne moom la am sa diggante ak moom uh-huh. moo tax euh, question boobu noonu bul ko sagane uh-huh. waaye itam li ngay tontu na ko bàyyi xel ndax lu tax mooy euh, bu fekkente ne ki ngay waxal ak euh, nit a dëgg-dëgg nekk na si moom sa tontu boobu noonu da koy téye lu ngeen di àndate dem itam tontu boobu de koy ba parce que loolu mooy euh, seen premier contact. Uh-huh. ci ci ci ci waxtaan affaire mbëggeel. Uh-huh. léegi nag foofu noonu moom dina bàyyi xel li ngay wax ak moom pour lan bu élégué mu xool li nga waxoon. ak uh-huh. moom ndax ma loolu mooy yaa ngi koy sam ba léegi. ndax yii say jëf. méngoo na ak la nga waxoon wala méngoowul bu fekkente ne nag loolu mu ngi bëgg a soppeeku jëm feneen mhm. parce que boobee ci bëgg nga ko bëgg ci la la mën a tegale nag bi nga demee boo wax ko loo xam ne day na ko ni ki kat mbëggilam kon mën naa koo comprendre mais ni ma koy comprendre man tam comme que def maa bëgg te nii ne nii na ma bëggee nii la ma bëggee kon man itam dinaa am condition bu ma ko mën a tegalal mhm. condition bi nag moom itam moom mii lay déglu itam ci condition ba mu koy tegalee ci lay xam bëgg nga ko wala bëgguloo ko kon ci waxtaan yu njëkk woowu noonu dafa am solo ci yéen ñaar ñi koy saq ku nekk bàyyi ci xel mhm. ba xam ndax bu ngeen continuer di dem moom la mu la respecté loo woon la mu la fonk loo woon la mu la sàmm loo woon ne lii laa bëgg bu boobaa dina ànd ci dina feeñ ci dund bi ngeen di dund waaye moom mi nga xamante ne moom nga bëgg si itam ginnaaw bi nga ko waxee loolu am na lu mu la tontu gëm-gëm man kat nii laa bëggee nii laa bëggee tegale condition moom itam di nga xool ndax ni muy dundeek yow ndax respecté na yooyee mu la waxoon ànd nañu wala àndul bu àndul nag nga xam ne kon kii euh, ay wax wérut hmm. waaw jaruta soril sa bopp ay ndax sa xandang la mu ngoog parce que comme li ñu wax ci mbëggeel dafa doy waar hmm. du nit ki danga koy bëgg naa ko rek dal di gumba taxlu waaw maanaam amatoo benn xalaat parce que bala ngaa àgg ak nit ki foofu dafay fekk ne dafa am conf bu dox sa diggante ak moom. déjà mbëggeel bi nga ko wax rek. waaw parce que moom mu wóolu la rek. loolu rek dafa neex. bu dee nag la nga koy wax nag nekkul ci yow. Mhm. yaakaar naa ne ak gënu ko rëy itam. rëy rëy la waaw moo tax nag nit ki toujours di di war a tey foofu noonu. mais ba muy gis ne wax yi ñoo ànd. Mhm. bu bu wax yeeg jëf ji àndee nag. Mhm. bu boobaa sa xel doog a dal. nga doog a xam ne nag am naa ku ma doon wér. gis naa ko góor ki ki ma doon wër mi ngi ma doon gis naa ko voilà xam nga loolu nag mooy choix <laughs> waaw la li nga choix ànd na ak méngoo na ak la nga bëggoon le retour waaw moo li dal xale bu góor bi du muy ñëw di doxaan si ci kër boobu noonu hmm. bàyyi woon na xel xëy na yooyu yëpp ndax ki nga bëgg fas yéene ngeen dem euh, tabax famille am na yu bëri yoo xam ne di ci bàyyi xel waaye loolu itam dafa laaj benn temps boo xamante ne nii ànd ak yàkkamti mm-hmm. parce que kii yàkkamti yàkkamti lan la nar ci li mu yàkkamti mm-hmm. waaw ak ko ngeen a bëgg a def seen aduna loolu jarul yàkkamti mm-hmm. parce que ki ngeen ne dañ ko bëgg a tàkk yàkkamti ak gaawantu moom mu juree doom rek rek ngeen daal di waaw léegi nag su àndee nag yàkkamti boo xam ne da nga ñëw presque mel ni lii da nga ko war a am kut ko kut ci même ci semaine ci deux jours trois jours euh, quinze jours lii dafa war a sax ko bëgg profité voilà loolu day day tey xel parce que adduna euh, yéen a ngi fi te dañoo ñaan ngeen dund fi lu yàgg mhm. waaw kon nag euh, ci seen coobaare mhm. li ngeen war a def mooy bañ a yàkkamti def mhm. ndànk xool fi ngeen di teg seen tànk ba ëllëg kenn du ci ñëw naa dama rëccu ci li ma. maanaam boo ne tekk rek tek wan la yoon wi. mu nga kon loolu mooy. dara a yàkkam si àddina. waaye ñoom si boppam comme yàgg na am na yoo xam ne sa amaan na yoon mu def mu nangu ko wala mu def ko. Mhm. Euh, te du méngoog ak su li nga xam ne mooy suñu aada réew meeg yooyu. Mhm. ñoom seen bopp xam nañu ne. Euh, détournement de mineur bu dee tout tànk la boo xam ne majeuragul mhm. kooku détournement de mineur la bu dee majeur la itam ñu ne dafa majeur rek kon si même bu dul yoon sax da ngis koo xam ne rek ku toog nii rek ah waaye nañu dimbali majeur na majeur et vacciné dañ tam ñu teg si majeur et vacciné. xam nga ban xeetu vaccin la ñuy wax nag. waaw mais euh, boo seetee itam gis nga wax jooju noonu. waaw toujours cekk muy génne ci ci kàddoom. waaw bu ñu ko defoon lam la muy wax noonu su doon ci doomam. moom la tegu wala moom si boppam voilà parce que tey euh, kenn ku nekk mën nga wax rek euh, lu ñëw nii dalul sa kaw. Hmm. nga jàpp ne lu oyof la. mais bu daloon sa kaw li lu mën naan jëf bala nga ko atte wala kii da ngay nett su nekkoon yow la su fekkoonte ne sa famille lañ jël sa sa njaboot la sa sœur la wala sa doom la wala euh, nu mu doon te bokk ci sa membre de famille mhm. nga xam ne jël ne ànd naa góor dem ci loo xamante ne nii ak say doxul seen diggante. ak yaa ngi sikki sàkk sax nag bu doon dafa yaradiku wala mu def lu topp àddinaam. waaw ba yaakaar ne moom bu moom bu doon joxoon yëf yi sax moom mu taxaw. <laughs> nga ne ah xëy na kii si loolu waaye gannaaw dafa am loo xam teew na seen xel. te yëpp mi ngi si biir. Mm-hmm. du moom moo la nettali. Mm-hmm. waaye am na rakkam boo xam ne du ñaata nekkul sa tofoom. Ah, gis na fekkee na si biir kër gi. Mm-hmm. amaana moom kooku bu ko gis woon teg si gëtam. Euh, du ko mën nettali yaayam kon kenn du xam. ba mu ko nettali yaayam na si la laaj ko itam mu mën a wax Ah, laaj ko ka nga xam ne moom mooy ndey mbile gi moom la ñu wax moo def li ni mel moom itam mu nangu mhm. mu nangu jëf ji mhm. te ne maa ko def parce que dafa feebar boppam mooy metti a mhm. ko ndax am nga droit euh, jël saafara di ko jox doomu jàmbur ba pare si biir këram te waajuram yëguñu tinuñu waaw loolu mooy li njëkk ci loolu dafa jiitu waaw li njëkk ci kon tey bu teeyee war naa mën a teey mu nga ndax si sa doom jékki-jékki ànd ak nit dem ànd ak kookee dem dem yoonam def diir di bu ñu lay euh, bu ñu lay jiiñ yeelu jëm euh, euh, ngay soccoo yeelu lii dañ ñaan yow ma loolu tam doy na waar tam nañu bàyyi yàmbur yooyu waa xam nga xam nga liñ ci jublu lii tam mooy lan tam wax jooju tamit <laughs> tawarkal wax bi liñ ci jublu mooy hmm. <laughs> bul tiit danaa tiit kay kenn xam nga ñu waxee baaxul ku <laughs> xam nga li ñu bëgg rek mooy dañoo jàpp ne tuuma génn tam nag ñu jiiñ la loolu waaw ñu ngi doon liir de. waaw léegi itam liy sëndeel tuuma it gënut a wér ngay soccoo. waaw dégg wax boobu loolu la a laa wax di wax jooju laay laaj. waaw ci baat olof ci baati olof yi la jógee léegi nag. Ah, olof kon dañ koy dañ koy dañ koy ci maam koc war na ah waaw. <laughs> ah bon je sais pas mais bon. <laughs> waaw léegi de waaye tamit. xam naa fi guddi style la de. waaw kay li wax bi diis diis na ci ci dégg ci. na kay mais lay wax mooy bu fekkee ne dañ la tuumaal ci dara. Mm-hmm. ñu fekk la ci nu laalee ci loolu. lu laaleeg loola. lu xaw a ndur loola waaw. Eh, bu fekkente ne da nga ñëw ci kër ne da bëgg si nit te d'accord ñoo ko yow ci kaddu amoo droit di ànd ak moom ci sëriñ wala ngay def dara di ko ko jox muy mel ni yow da nga koy jox dara pour moom donte kon dafa feebar parce que lu tax mooy ñoom ñaar. nekkuñu woon foo xam ne dañoo sori seen kilifa. waaye moom tam nee na ko nee na ko joxuma ko leneen loolu ayatul kursi mu na ko moom si boppam moo la moom tam jàng na gënoo ko jàng. na def na franco arabe moom si boppam bu amee ay ñoo xam ne sax seen waa l'école bu amee ko si doon daanaka yooyu sax moom moo lay taril euh, ayatul kursi bi. kon nag moom dana ma ah, loolu daal la ko nit ki wax ndax loolee la ko bindal am déet ñun itam mënuñu wax ne bindalu ko loolu dëgg ci këj boobaa dañuy am fit te boobaa dañuy am bàkk dañuy bàkkaar itam te bëgguñu ko waaw xam nga fii laa yem ma ci woon moo gën mm. ndax bu ne ayatu kursi laa ko bindal mm-hmm. euh, ba mu bindee ku mm. kenn kenn ñëwul ci moom sàkku mu bind mm. te itam bu fekkonte ne nii dafa nekk ak xale bi foo xam ne dafa sori ay waajuram ak waa kër ak waajuram yi nangu woon parce que lu jiitu loolu. dañ ko tere woon. waaw parce que li li li may wax nii dafay am yoo xamante ne ni keneen mën na cee nekk victime. Uh-huh. waaw ñu ubbi waale téléphone bi si 88 Adjaratou Penda Diallo Gueye 628 99 99 ngeen daal di bës 114 88 628 99 99 114. léegi bu fekkonte ne nii condition yooyu noonu dafa fekkoon ne moom ak xale bi. fa ñu nekk sori na toog ak ay waajuram fi ñu nekk nga xam ne benn mbokkam boo xam ne sës na ci moom koo xam ne mun naa ñëw gaaw jublu ci bu fekkee walu ñaan la soxla mu mun koo taxaw parce que damay wax ne doomu jàmbur kenn du ko yóbbu ci sëriñ kenn du ko yóbbu ci maaman parce que lu tax mooy dafa am yoo xamante ne nii ña ko sës ñoo ko war a def boo ko yóbboo te yóbbu tam nga tàggoo voilà bu dee dañ la demal nga dem yow bu dee bu dee doomu jàmbur la war nga tàggu yaayam wala papam bu dee bu dee jëkkëru jàmbur la war nga tàggu soxna si wala wala. Mhm. bu dee soxnawu jàmbur itam et vice versa. ku doon rek am na kilifa waaye jékki-jékki rek wala même bu kilifaam. Mhm. am na koo xam mi ngi nekkandoo ak moom moom la ko yàlla booleel mais jékki-jékki rek yóbbu eh, ne dem naa boobaa euh, kenn du kenn seen xel du dal waaw dañu am na leen loo si bëgg mu ngoog kon léegi su fekkee ni euh, jël nga fekk nga nit ki ci kër yu waajuram nga xam ne gënul mu ngi ci kër papaam mu wóor la eh, yow kii boo wowoon yaayam léegi mu ñëw papaam soriwul ay frère am kon mu ngi ci biir famille kon kooku noonu amoo droit di ko jéem a jox benn saafara ndax lu mel noonu dafa doy waar. quel que soit sa diggante ak moom bu doon takk na ko nag borom këram yaakaar naa am na droit waaw bu boobaa loolu am sëy dugg na seen diggante bu boobaa sañ nga koo defal yu mel noonu mhm. soo gisee bu leneen sama nangam day metti sañ ngaa bind jox ko sañ ngaa euh, kii jox ko loola seen diggante ci mariage ngeen parce que même bu dee loolu la kenn du kenn du ko mën a gëm mhm. te amaana sax mën na nekk loolu waaw waaye du ñu ko gën li tax mooy euh, euh, du man setalul gor àggu fa waaw parce que lu tax mooy bu dee ne weddi bi salamin la yem rek keneen gisul lu ko leer bu ko neexee mu ne ah daa weddi rek waaye weddi boobu doyut ma hmm. te itam li tax doyut mooy mbir mi bi muy tàmbali fi mu tàmbalee waaye fu mu jeexee mooy tax ba nit mën a ñaaw njort ne kon kat lii doonu ko nag neen ndax xel bi bu fekkonte ne daf daan fàq di dem. Mm. dafa tàmmoon di fekki ay ay ay ay ay ay copains. ñu ne waaw gën ak ñoom ñu ne waaw. Mm-hmm. wante euh, mel na ni soo gisee ni doon lu mu doon dund ak bu njëkk bi. Mm-hmm. nekkul woon koo xam ni. day génn di dem ak moom ci yenn mm-hmm. euh, kii wala mm-hmm. muy abandonné seen kër ay quelques jours di dem nit kooku mooy ñëw fekk si ko nekk ndoog famille bi di attaayandoo di kii ba kër ba muy ñibbi mm-hmm. mu gunge ko mu yem si bun kër gi jeex na waaw ñu sukkandiku ba tey si kàddu yi yaayam njëkkati yaayam nag bu ñu sañee si yoon yi dem jaabante beeg yooyu ak euh, yóbboon ko si gynécologue ñu xool ba xam euh, ndax diir ga mu nekk ak moom daf ko doon ñoon xoolante rek wala am na neneen lu fa xew ak yooyu gannaaw loolee la wax moom parce que dafa ne moom sequl moom dara sukkandiku rek moom itam si kàddu yo mu leen euh, dénk ñu gëm ko waaye ba ñu koy yóbboo si takk der takk der bàyyi nañu ko naam waaye dañ ne ñoom mu waa mun leen rëcc mm-hmm. ñu ngi enquête nañu gune gu jigéen gi mm-hmm. euh, di xool nag après ñu ne ko waaye diggante bi nag yow jëlee sa doom nga yóbbu ko bu ko defee ñoom ñu xool ko am déet si foofu lañ toll woon ndax bu dee am na itam bu dee leen xew na si itam ndax moom dinañu ko mën a wax wala ak lu mënti xew itam daal en tout cas ñu wax téléspectateurs yi foofu la toll waaw xam nga tey su fekkente ne ni kàddoom rek la yëkkati di ko joxe de du doyati rek euh, famille euh, xale bi. ndax waxoon nga yaa ngi si xelwa léegi nga pare. te dikk moom ba léegi sukkandiku ci sa boobu. ndax lu tax mooy dafa am yoo xamante ne ni bu xewee. li ko wér lépp nga xool ko dara leeru si mhm. bu ca kàddu jógatee itam jóge ca ka nga xam ne ni jëf ji yëpp ci kawam la tegu bu boobaa dootul mën a neex a gëm mhm. maanaam ñun ñëpp ku ci nekk rek na nga bàyyi xel ne lii xew nii bu dee ci sa côté la dalee di nga xam ne wax yi nga ciy dégg nii rek du doy ndax bu fekkente ne nit ki euh, daf la bëgg ba jaral ko mu gën ay waajuram tàkkook ay waajuram dem ànd ak yow yow mu muy bëgg laa wax dañu nekk ci réew moo xamante ne nii loolu xew fii bokkul ci suñuy aada suñu diine nag moom nangu waaw maanaam maanaam diine jën diine boo xamante ne nangu na loolu amul ci réew mi kon euh, suñuy aada itam nangu ko ma ne même tubaab laa la wax. tubaab bu bëgg yëfi jaar si yoon. Mhm. warta nangu lool ndax ku majeur. Mhm. ñu yóbbu ko te tàggoo te amagul borom kër. Mhm. bu dee dafa am borom kër. tàgguwoo borom këram. def nga loo xam ne waroo ko def. amagul borom kër am na ay soxna am na ay waajur ñoom ñooy ay kilifaam. ñooñu itam da ngay war a tàggu. tàgguwoo leen ñoom ñu nekk si njaaxare boobu ba tey di ko wër. dem si télévision beeg yooyu. waaw tubaab yi yaakaar naa ne duñ ko ko defee non séquestration la ñuy wax enlèvement. parce que bu fekkente ne bu fekkente ne yow ak nga ci âge war a mën a dem ak sa copain tam du doon loo xam ne looy nëbbatoo say say say parents eh? di nga leen di nga am sañ leen man kat kii euh, tey sama kii mat na war na maa mën a choisir ànd ak ku ma neex mhm. kii mooy sama copain moom lay àndal mhm. maa ngi dem mhm. loolu ab tàggoo la boo xam ne day am say wajur comme ñoom seeni aada nangu na ko doonul lu leen jaaxal war naa nekk ndax bu fekkente ne euh, moom yaayam noonu la defoon ak papaam tey buñ ci amee doom doom boobu bu màggee di leen tàggu di wax day xam ne fa ñu àggoon ba euh, euh, ber seen bopp ba ànd fala suñ doom bi ak bay ànd COPACEL non mais yoon mayu lool loolu laa lay wax. waaw mais mais ci même bu majeure yoon laaw mayu lool. dañ naan daf ko enlever daf ko séquestrer. Mhm. maanaam jël ko tëj ko te sa waa këram yëguñu. waaw kay waaw yëgul moo tax. man ñoom bu ñu koy def. boobaa ki ku jigéen ki bala moo dem di ànd ak copain dina wax ay waajuram ne leen maa ngi dem diw laay àndal diw moomu du nebbutu ñoom moom itam du noonu lu ñuy nebbutoo ba nga xam ne dañ naan ñoom xamuñu fuñ dem xamuñu ci luñ nekk. xamuñu ko waaw boo bët boo xam ne moom danaan ko juxu jaara ne ay waa këram seen yoon nekku si maa ko bëgg fu ma neex laay dem waaw man man man majeur naa magum jëmm laa lu ma def maa ko tey ah, mais xale bi moom dafa bool ak dara ko wax waaw moom da see jaaree rek noppi gémmi gi moom dafa ah. noppi ah, waaw ki nga xam ne luñ ko wax ki nga xam ne dafa wóo bët wóo bët comme neen ko waxee ba mën a jàkkaarloog ay ay ay ay ay waajuram ne leen xujj bu ngeen ma ko mayul parce que loolu dafay am rek dinaa dem danaa bu may dund danaa ànd moom su may dee danaa ànd ak moom mhm. kooku dafa jël ay dem pour dem ànd ak kooku nga xam mhm. ne moom la tànnal boppam mhm. loolu itam soo soo koy bu ko xale bi def itam du tax mu neex ay waajuram du tax mu neex ay mbokkam parce que def na ko malgré que jël na ay décision yoo xam ne nëbbutuwul ne bi muy dem ne na maa ngi dem te ci diw dem jëm xam nga kooku wax na lu leer ëllëg ay waajuram duñu ko wéri parce que mhm. xam nañ ne moom moo tanal boppam mhm. ci coobaaree boppam ne maa ngi dem mhm. voilà kon fa muy jëm ak fa mu jëmul bu boobaa dootuñu wax kee dara mhm. tamit àndal waaye li ëpp li ñuy wax ci seen doom lañ koy def d'accord léegi nag moom ñu ngi koy xaar ni bu ko defee lépp lu tukkee mu indiwaatal ñu ko waaye ba tey génn ñu ba tey thème bi mhm. soxna si ñu ci waroon dalal waaw yow yaay dikk ak ñun si as tuuti si li nga xam ne si tënk mhm. li nga xam ne moom moo ko waroon moo waroon tax mu daal di dikk war a feggoo ak ñun ñuy jégalu si moom mhm. kon parce que dafa ne mi ngi si yoon wi dafa tardé ah, xam nga télévision yi itam waxtu la amul xaar boo amee jafe-jafe ba dikk rek bañ jox la dig daje ah, eh, li wetu wóor mooy nga dikk boo di boo dikkulee itam nga teel xamale ak mhm. eh, teel ñoo yëgal bu defee ñu itam ñoo xam ne ñuy def waaw waaw maa ngi ñëw rek maa ngi ñëw bu dul jeex moom <laughs> ak te agsi woo day xaw a doy waar waaw waxtu xam nga kon lépp loo xam ne dañ koy def ci waxtu lañ koy amal. ko waxtu bu passé loolu dootul mën a mm-hmm. nekk di wéy. boobaa keneen mooy jël yi fa keneen mooy jël yi que ku jël lépp ñu dab la. mu ngoog waaw kon bi nga xamante ne ni jël nañoo ko moom rendez mm-hmm. wax ko ndax euh, dëmb lañ ko waroon dal. Mm-hmm. mu ne dëmb dafa am mu ñu nangul ko ko. ni ko kon léegi ndax alarba di nga mën a ñëw. ñu wéyal liggéey bi. moom itam wax ne waaw dana mën a nekk mhm. ma ne ko dama bëgg nga wax ma loo xam ne lu leer la ndax mhm. programme la programme de su ci waxante xëy na wala yàgg mhm, na li ngay wax lu weer su fekkee mën naa nekk ñu ñu wax ko bu fekkee mënut a nekk ñu xam ko mu dal di ma ne non dana dana waaw ma toogaat ba dem ay euh, euh, vingt deux heures trente moo woowaat ko mhm. ne ko mba fàttewuloo suñu mhm. rendez-vous suba mhm. na nga ñëw ba ñaak ba lépp dama ko dama jëlaat yëpp rek kiiwaat ko batal la waaw kay waaw ko moom <laughs> bëgg rek xëy na eh, léeg-léeg ñi dañu am seen i jafe-jafe ñoo bëgg a euh, waxtaan ak wante ñu xam mbir yi na muy doxee dëgg kon it dafa am yu bëri yoo xam ne diñ ko expliquer nit ki balaa moo ak fen fi moo taxoon man tam ma ma ma ma taxawee noonu di ko expliquer di ko jéem a xamal ne ko waxtu wi daal na la fekk boo dikkee na nga toog xaar parce que heure bi nga xamante ne ci ngay war a tàmbali doo war a xaar ba heure boobu jot sëkk ngay doog a agsi non wala tam buñ la ko waxee buñ la waxee dinañ ñëw mhm. mën nañu xam ne ñoom nga xale ne que ñoom ko ñoom duñ ñëw mhm. waaye ñoom l'essentiel nañu wax seen jafe-jafe mhm. nañ ko nettali nit ci bu ko defee ñu daal di féex soulagé wu loolu itam nga sóoraale ko ñaare moo am am na ñoo xam ne bu ñu waxee rek feex nañu kañ koy wax nag mooy yanu ah, kay waaye moo tax bi nga xamante ne ni itam yokkoon nañ ci ay kàddu ba mu wax ma lu bëri ci loo xam ne nii lu ko metti la loo xam ne lu dal ci moom la digganteem ak njabootam mhm. mu doon lu metti boo xamante ne yaay bu nekk rek su dundee loolu ak njabootam day metti mhm. ndax dañuy wax ne euh, nag weq na doom jawaay bañu ko voilà xëy na moom ci biir njabootam ay doomi boppam yoo xam ne moom moo leen euh, euh, meñ ñooñu ñoo ko teg loolu nga xamante ne naqar boobu nga xam ne moo ko naqari ba tax mu jóg solu dalam di jóg di seet ku mu waxtaane mm-hmm. ba mu ma waxee itam ne naa ko est-ce que doo bàyyi ma jéem a contacter sa doom yooyu waxtaan ak ñoom mm-hmm. su fekkente ne mën nañoo dellu si ñu dellu si ci sa côté moo gën parce que bala ñoo ñëw di teg affaire yi ci mm-hmm. euh, média bi ñëpp noonu la fay demee ma voilà loolu moo waru na jëkk a jiitu waaye moom mu ne moom man daal li ma bëgg mooy comme que lii ñu ma attee lii ñu ma tuumaal lii ñu ma teg nii di yàq sama der damaa bëggoon euh, àddina bi jot yi bu ku nekk mu xam yow yaay kan ak fan nga war a taxaw bu fekkente ne ñoom ñoo jum ñu wax leen ne yéen yéen a jum su fekkente ne man maa juum ñu wax ne man. waaye laata loolu itam faaw ñu mën a jokkoo ak nga xam ne moom mooy ki muy waxal. bu dee def nañu suñu gént lay kattan ba nga xam ne nag ñu def nañu waroon def. parce que am ju euh, c'est juste da war a équilibré. Mhm. waaye du tee itam ñu fàttali mbokk téléspectateurs yi. que mhm. am na leen loo xam ne seqoon ko ak moom waxtaan ci téléphone bi. waaye ba tey rek loolu dañu koy jël denc. ndax comme dafa wax te bëgg àdduna yëpp si am na ñoo xam dañuy yàkkamti am information ne ah, na si àdduna yu jot mhm. bu ko defee man dinaa dem télévision mhm. wax ko fa mhm. dinaa dem rajo wax ko fa ah, dina xam ne nangam nangam boobaa ñun loolu du dox ak ñun ah, parce que bëgguñu kuy yàq ku ne da koy xoolee sa bopp depuis jour boobu noonu enregistré naa ko wante nag loolu ba léegi itam. Mm, waaw dañ koy téye parce que lu tax mooy waxtaan du ñàkk. du du wees. Mm-hmm. te it diggante bi li ma ci bëggoon dox ko ci parce que euh, soo fekkee nit mu nekk ci benn liggéey. Mm-hmm. di ko liggéey liggéey bu rafet. am mm-hmm. taxawaay bu mu ci taxawee su fekkente ne nii euh, loolu dafa ñëw. tabbi ci say loxo mhm. war naa am yow itam nga xool fa mu tegoon tànkam la mu mhm. ca gëmoon la mu ca respecté woon nga jéem koo respecté sàmm ko mhm. ndax loolu mooy eh, li nga xamante ne moom la émission bi di doxee kon bi ñu ñëwee itam bi yàlla dogalee mu ñëw eh, ci yow la doon jëm si waaw fa dajeek man ñu ne ko ah comme que ci caba nga doon seet yaa ngi bàyyi moon a ngi nii mën nga wax ak moom ci la ma dénk kaddu yooyu noonu wante bi muy commencé di expliquer itam ma ne ah, naa ko enregistré. Mhm. waaw mhm. ci kaw mu xam ne maa ngi koy enregistré. Mhm. ndax mu feex waaw ndax mu feex. bi mu wax it dafa poussé commencé jooy ne ma naa dem ci télé bi nangeen ma kii ma ne ko dee taxawal. bul ñu gaaw a def loolu. nañu fexe ñu waxtaan. parce que yow ak sa njaboot la. nit ki mënut a jur doom di ko bañ. ñoom itam xëy na dañoo am lu ñu umpe rek. Euh, seen xel moo matagul waaye waajur kenn du ko toroxal. ak ci di ko dóor wala nga di ko jiiñ tuuma ju toll nii. Euh, la ñuy bañ a tudd mhm. kon dafa doon loo xamante ne ni mhm. su amee ci famille itam waxtaane ko mu rafet ci seen biir. maanaam dafa dem ba doom bu jigéen daf ko tuum daf ko tuumaal ne ko moom dañ koy tooñ. waaw daf ko tuum yaayam da lay tuumaal. waaw allahu akbar. waaw ci ci ci ci yërmande boo. xam ne moo bu ko doonee ndax moom doonu ko tamit. wala ah, waaw ah, xam nga. déedéet wala loolu kenn du ko doon ku tuumaal sa ndey doo set. ci yooyu waaw ndax doon nga ko doonoo ko yëpp itam naa doom ja ndey ja. ce que lépp si moom la tukkee directement ndax amul keneen koo xam ne mi ngi si diggante bi di xam ba taal bi. noonu lay demee parce que saa su nekk damay naan ki nga war a wax toujours euh, dama koy euh, ko bantu hmm. ki nga war a wax nit ki bul déglu mu wax la nit ki ci gis nga sa sa soxna hmm. sa borom hmm. wayjur sa xarit sa mbokk ki nga xamante ni jege na la yéen a ngi seq demalante ka dikkalante kooku waroo nangu kenn di la ko jàngal ndax lu tax mooy képp di mën a wax moom balaa mu koy xam xanaa xam nga ko bu ndax yaa ngi làkk moom yàkkamtee wax la waaye ki làkk mooy jëkk a jëkk a xam euh, boppam ne maa ngi làkk waaye ku waxul jàmm sax dëgg yàlla kooku jar naa li lijjanti ay mbiram kooku du ku baax parce que boo fekkee diggante tax mhm. boo xam ne yow gi xal na gis nga ne yow fii waroo fi xaj puso mhm. sax waroo fa xaj waxatuma la ak nit ci nga ñëw dugal bi toll na yow nga ñëw wax fa sa kàddu googu li ñu naan seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel waaye bu kooku bu amoon fulla ak fayda mhm. du déglu ndax daraan yow mii ku doy waar nga ku safaanu nga yow la war a lijjanti enquêteur la xool ba xam yow a kan ah, léegi nag euh, comme lu mel noonu dafay am ci seen biir hmm. xëy na bu ñu commencé woon leeral rek li nga xamante ne euh, mooy histoire fi mu demee hmm. niin fi mu tàmbalee waaw peut-être moom bu dikkee gën a def yaatal ndax dafa gudd hmm. dafa gudd loolu histoire bu gudd wante nag li ciy tenk rek waaw ki nga xam ne yàlla dogal na dafa am doom bu jigéen mm-hmm. bi mu amee doom bu jigéen bi ah, yàlla dogal mu dem ba yore na ko ba mu am juróomi at mu ngi tey xale bi moom yaay ji wante comme que amul jëkkër ci jamono boobu noonu mënuta téye xale boobu noonu faw mu delloo ko waajuram wax neex na waaye dégg moo ko raw dégg moo ko raw dafa yor doomam bu jigéen am lu jiitu waaw mu am doom doom jooju la yaay moo ko doon sàmmal waaw ji moo ko doon moo ko moom toppatoo di yaay ji ci boppam ci boppam mm-hmm. lay wax histoire ak doomam mu tàmbalee mm-hmm. waaw doom bi jigéen boobu mu yoroon mu am juróomi at mm-hmm. mu ne comme que damay liggéey dama kii mënumaa yore xale bi naa ko delloo naa ko yóbbu ci papaam pour papaam yor ko waaw mu jël xale bi yóbbu ko ci papaam papaam yore xale bi te papa ji yore xale bi moom mu continuer nekk ci liggéeyam mm-hmm. waaw bi nga xamee ne xale bi dem na bay mag nag mm-hmm. diggante boobu noonu mu ngi laaj yaayam waaw xam naa nag foofu noonu eh, taxaw seetlu am na fa mm-hmm. ci ci ci ci waxinam parce que bu fekkente ne nii eh, xale bi yor nga ko ba mu am eh, juróomi at nga yóbbu ko ci papaam Euh, warutu la nekk koo xamante ne ni daf lay fàtte fàtte ba xametul yaayam kon xëy na yow itam. daaw ko seet temps temps doo fa dem. wala nga koy woo téléphone. waaw parce que bu fekkonte ne yaa ngi koy nimeku kon peut-être loolu du mën a nekk parce que nit soo soo àndee wax itam du du yaay ñoo ci man dama lay faral ci wax. mooy information dañ koy vérifier waaw dañ koy vérifier parce que des fois tam mooy loolu. soo waxee itam dinañ dégg ci wax ji xale bi bu mu demee di laajte loolu di laajte loolu ba mu moom papaam. solo xëy na papaam bëggatul woon tam parce que foofu euh, jëlul nekkul ne da ko laaj rek papaam fexe yaayam gisante ak moom kon xelu bi topp na ko di ko laaj papaam ba papaam ne ko waaw naa la andil sa yaay. bi mu ko andil et puis dara leer naq coo dafa doxoon ci diggante. soxna si ak ak borom këram woon. wala ki mu amaloon doom boobu mu nga waaw xamuñu. mais boo fekkente ne da ngay euh, seetlu rek. am na ñagas ñagas. Mm-hmm. fa nekkoon. Mm-hmm. ci kaw delloo ji bu mu yóbbu xale bi ci papaay xale bi. Mm-hmm. ba pare xale bi kontaanul woon ci diggante bi noonu hmm. waaw loolu moom mooy tax ba li firndeel loolu mooy bi nga xamante ne moom mu ngi laaj euh, euh, yaayam kii teelu ko tegtal yaayam te su fekkoon neexoo amoon na fa parce que dama ne takkale koo mën naa am waaye nañ koy rafetal mm-hmm. ndax lu tax ñu koy rafetal muy xale yooyu nga xam ne moom seen deret jaxasoo na te mënatu ngeen koo seddoo toujours damay wax ne deret bu jaxasooyee rek rafetal rek ma fa xëcc maanaam bu si doom judduwul sax da nga war a rafetoo waxatu nga laat nag doom juddu si parce que xale ngeen ñu si war a suuraale que dafa am loo xamante ne ni ëllëg ci magam da caa mën a xew parce que xale bay moor bu màggee mu nekka ak pap faaw mu laajte yaay. bu dee dafa nekk yaay. faaw mu laajte papa bul sonn ku màgg laajte. Euh, kon nag diggante boobu yéen ñaar ñi ko sax war ngeen a rafetoo ci xam ne tey am na lu dox seen diggante loo xam ne adduna la ndax njaboot adduna la lu ne ngi ci biir kon nag foofu noonu war ngeen bàyyi lépp lu ngeen jàppoon moo xam. déggoo di ko bu nekkoon seen biir mhm. moo xam naqar bu nekkoon seen biir moo xam yéen ngeen jàppalante woon xam ne am na jamono boo xam ne seen diggante neexoon na kon looloo sabab loolu am kon nag diggante boobu na ngeen ko fàttaliku toy sedd cër kii nga xamante ni moom itam su doon yéen na ngeen xool ko ndax dana la neex wala déet mhm. loolu nag moo sabab mbir mi ci mhm. tàmbalikaay Eh, mu dem ba gisanteeg yaayam. Mhm. ba mu ko présenté ne kii du sama yaay mu ne ko kii mooy sa yaay. Ah, li tax mu la xew kii du waaw xam nga loolu yëpp mooy eh, eh, peut-être ñàkk a gisante bu yàgg bi rek mooy indi yooyu noonu waaye bi nga xamee ne mhm. xale bi accepté na ko ne waa sama yaay la ba nekk ak moom kon léegi loolu moom leer na ne nangu na ne kii mooy sama yaay mu ngi demalante ak a dikkalante xale bu jigéen bi itam toll ci gis ku mu bëgganteel. kon ba muy ñëw si yaayam daanaka ñaata at la war a làq. waaw parce que bi koy yaayam loolu nag lii la ma yaay ji jot de leeral question mm. boobu def na la ci mm-hmm. laajuma mm. waaye daal euh, ci diir boobu nga xam ne ci la amee juróomi at ba ni mu màggee parce que kiy laaj yaay moom jàpp nañ ne ku mag la mm, voilà voilà kon kon kon bi mu toloo ci war a nag euh, gis ku mu bëgg mm-hmm. mu dal di gaaral yaay ji loolu ne ko man damaa am ku mu bëgganteel mm-hmm. yaay ji itam dal di ko ne teengaa Hmm. mu ne ko déedéet yow saa bu ma àndee kenn kii laa bëgg rek nga dàq ko. Hmm. waaw kon loolu it xale bi waxu ko yaay ji moo ko wax. Hmm. ma ne ko man de soo gisee loolu damaa xam ne damaa yore njaboot te yéen ñii yéen a war a dimbali. c'est suma ci kenn. Ah. moo tax ma bëgg c'est eh, suma ci moom ça va waaw mooy lan maanaam dërëm ak dërëm dafa war a seet koo xam ne daa wala garab bu la si tudd la may ker la wala. waaw xëy na bu parce que sësu yéen moo dimbali sësu ma si kenn waaw mu ne ko saa yi ma indi nit indee fii euh, saa yi ma indee nit fii ne ko kii laa bëgganteel euh, nga dàq ko waaw jékki-jékki ne ko yéen a ma war a dimbali ndax së ndax sëtu ma euh, si ndax sësu ma si kenn loolu mooy ñi nga fi indi yëpp tabaarkàlla daf mel ne tanewuñu la waaw kay léegi mën nañ cee déggee loolu waaw waaw mën nañ cee déggee loolu hmm. ndax itam ci wax mu ne hmm. dégg na laaj waaye ci biir loolu mu ne damaa bëgg ngeen am ku baax koo xam ne ku baax dina leen yërëm hmm. dina leen mën a téye hmm. ba ma ngeen yàkkamti bu dugg ci li ma dal dal leen ku baax wala ku am xaalis waaw xam nga ci wax comme booy nettali waxi jàmbur. parce que fii ku baax rek dañu fii ku a may xaalis ñu ne aka baax aka baax ñu ne alam moo tax ngay a may xaalis déggal loolu <laughs> xaalis xorom la gaa wax dëgg hmm. yàlla waaye nag tabarkàlla am na leen loo xam ne moo gën waaw kay ndax euh, xaalis daa dékkul ah, comme daa dékkul kay moo tax ba wóorut euh, euh, gis nga bi nga xamante ne nii wax na loolu mu ne ma ne ko damaa bëgg rek ngeen li ma dal bañ leen a dal hmm. maa bëgg ngeen bañ a ba gis ku baax ngeen dugg si moom waaw loolu it wax la. loolu may xas na papam. waaw loolu itam wax la waaw. Hmm. léegi bi nga xamante ne nii wax na loolu xale bi. Hmm. xele bi nag ne ko kii man bëgg naa ko su ma ko mayee dinaa ci dem su ma ko mayee dinaa ci dem. Ah, ah, ah. waaw kon moom andi na. wax wo wo battu boobu nga wax ñëw na taxaw na. waaye ci biir loolu comme daf doon jàng ba am fu mu doon def stage yooyu. Hmm. ñu mu eh, nangu ko ba am benn kii bu mu dem société di ko jël mu di fa liggéey. Euh, société boobu sax. delluwaat na ci euh, euh, réew bi nga xamante ne moom la nekk muy euh, Guinée Bissau kon dem na ba léegi yaayam ak moom fa mu nekk réew yu wute la. sore waaw moom mu yaay ji mu ngi Sénégal mais xale bi mu ngi Guinée Bissau. ba tey Afrique liggéey waaw ba tey Afrique ci suñu suñu sous-région bi la ba. Mhm. waaw léegi xale bi continuer ki muy bëgganteel am mbokkam mu gaañu. moo ci liggéey. Hmm. xele bi woo ko ne ko damaa bëgg nga demal ma ci. ndeysaan. dëj boobu noonu. kóllëre nga jaale ma. waaw. yaay ji mu ne ah waaw dinaa dem. ndax ñax pexe. waaw xam nga nag mu ngi jëm foo xam ne tam bu jàng sawaru fa. waaw mu demee mu ne dégg na ay mbokk yi. ku góor ki ku góor ki ñuy wax ci xale bu góor bi. Hmm. nga xam ne moom la frère am gaañoo. léegi ñu may wax yi ñu wax ci moom ne nañu wàcc na ñeenti soxna eh, eh, eh, mm, mm, xam nga rek di ngay dem bu dee dëgg la lu taw a xam yàggul waaw mais bu dee nag leneen la moom doo comprendre di seede ci moom ay jikko yoo xamante ne nii jikko yoo xam ne nii wax dëgg yàlla kenn bugg ko woon itam sa doom ku muy àndal ñu signé ko ci moom loolu nag ndax maire bi <laughs> ñàkk juboo ak moo tax waa ji moo tax mu kër yi loolu. Mm. wala lu am la. lu am la bu dee lu am la itam moo tax dëj tamit. waaw li eh, li way Abdou Guité Seck bi àllaaji boobu. Mm-hmm. loolu lay wax ah. Abdou Guité Seck wayam boobu. Ah, toog ci dëj di jëw bay jëw ki dem. dit loolu moom parce que dañuy jëw ba jëw doo xam ne yow xamoo sax ki toog. Mm-hmm. ki toog mi ngi fi ni mi ngi déglu. Mm-hmm. pour xool kan moo war kan la war a mën mën a may doomam. waaw ni ñuy demee sax ñoom ñu ngi làkk beneen langue boo xam ne jàpp nañ ne dégg ko. seen wax sax bi ñu demee di wax di wax ba mu leen waa yéen wax te ànd nit te xamu ngeen ki mbokkam la wala du mbokk dégg nga kon ndax na xam ndax langue bi ngeen di làkk ni dégg na ko wala dégg hmm. kon ñoom ñu ngi doon làkk seen langue hmm. moom bokkut ak ñoom xeet euh, boobu langue boobu wante nag dégg na ko waaw bi ñu ko kenn dal di yox daal di ko ne ah waaw yow euh, euh, kii nga kii sangam boobu sangam nga mu ne ko déedéet hmm. du ma ko man sangam laa. <laughs> duma ko waaw léegi mu ne ko ah. kon euh, li ñuy wax dëgg nga ko mu ne non non dégguma noonu eh. parce que boobu mu ngi bëgg a euh, réparé waat kaddu yi waaw parce que tiit nañu ndax mën naa doon mbokk mu ko jege mun naa andi yeneen euh, jafe-jafe seen baaxul de moom itam mu nebb leen boppam mu ne dégg naa li ñu wax lépp mais bëgguma wax leen ndax bu ma leen waxee danañu rus te itam moo tax ma téye ma ne leen dégguma ko kon moom ah, lu mën a nekk la de wala tamit ça dépend daal moom daal ñaar mën naa nekk daal mi ngi noonu waaw comme ni mu waxee nag a foofu lañ léegi bi nga xam ne xale bu jigéen bi def na loolu mu ñibbi dellu si ci dëj bi mu woo xale bi ne ko ah diw dem dem naa fa de waaye na ma fa dégg day doy na waar xale bu góor bi teeyal nga gestu ay mbiram mhm, ba mu leer parce que kii li ma dëgg si moom dalu xel yàlla dalu suma xel. waaw su ma sañoon nga teey. Mhm. doom ji itam loole mu wax xam naa. intéressé wu ko intéressé wu ko parce que jàpp na ne rek sama yaay dafa bëggul ku buggul du wax lu rafet. léegi mu toog benn jëmi jamono mu woo ko ne ko waaw yaay yow doo woote. mu ne ko ah du ma woote yow xam nga man jafe-jafe yu ma nekkee maa ngi yore xale maa ngi liggéey du ma am temps bu bëri yow kay su fekkee ne am nga temps. nga woo ma rek. Mhm. waaw mu ne ko waa dangaa war di woote nag. te jokko yi day cher sax ndeysaan dangaa war di woote man nag damaa ëmb. ah ah ah daal mooy wax ja. waaw mu ne ko ah. mu ne ko waaw boo ëmbee nii nga ma ko war a waxee. mu ne ko ah waaw man daal damaa ëmb en tout cas. Hmm? waaw mu ne ko foo mu ne maa ngi sept mois. ndax mu toll ba juróom-ñaari weer. waaw kon xam nga ko dese bareetul. voilà kon kon xam nga ni loolu doy na waar. Mm, yaay ji yaay ji nag na nga ñëw. yaay ji ne ko man di mënumaa ñëw léegi ndax damaa yor liggéey jàmbur mais su ma demee ba feet dinaa ñoom mhm. dinaa préparé wu waaj mhm. mën a am lu ma bayil xale yi mhm. mën a am loo xam ne dinaa ko mën a dimbali waaw ñoom léegi bi yaay ji di waaj préparé wu bay dem fekk na moom mu doom ci waaw dañ ko mujjoon yóbbu sax euh, hôpital dañ ko mujjoon euh, kii opéré pour mën a kii waaw léegi euh, yaay ji dem mu demee fekk ko foofu nekk ak moom di ko jàppale ci xale bi. Mm-hmm. waaw parce que loolu mooy. role bi yaay am ci doomam malgré que neex ko. Mm-hmm. waaye na ñëw jàppale ko. mënu ko gën waaye ci biir loolu mu ñëwee itam xale bi ànd ak benn xaritam génn doxi ay ite ci dëkk bi. Mm-hmm. bàyyi ko ak xale bi yaay ji yore ko. xam naa bi mu demee mu xaw a yàgg xale bi di jooy. yaay ji euh, nax nax nax noppiwul. amul lu mu ko naxee amul lu mu ko naxee. mu ne xaaral ma jox ko suma ween. su ma ko joxee suma ween bi. mu mën naa ko naxee noonu mu yàlla mm-hmm. waaw kooku ku ko jox ween bi nag moom moo jur yaayam mooy ab setam la jox ween waaw te ba tey waaw kay léegi am na dëkkandoo boo xam ne nag mu ngi si kër bi kooku daal di koy gis mu jox ko weenam mu daal di ko ne waaw diw yow looy def lii yaa ngi jël euh, sa ween bi di ko jox xale bi mu ne ko ah waaw loolu lan moo si nekk <laughs> kii man dama jaaxle rek nax naa ko mën naa ko naxel yi mu nelaw lool leen ma si nekk mu ne ko li nga def rafetul waroo ko def doom ji ñëw mu ne ko seyaay li ko andi si kër gi du jàmm ay seyaay lu fexe bi ko fi andi bu sotee du baax si wala du baax sa doom parce que fekk naa ko mu jël weenam bi di ko jox sa doom mu jigéen wala góor jigéen cay jigéen léegi ñu ngi suñu weer nag waaye tabarkàlla faaw ñu waxal léegi doom ji dal di attaqué yaay ji commencé xas ko lu ne mu wax ko ko lu tax nga jël sa ween di ko jox sama doom oh. ah léegi da ñëw fii pour sakkal ñu pexe oh. da ñëw fii pour Eh, eh, eh, lor suma doom. wala nga lor ma pare nañu bu yàgg. ñun ñoo la jëkk a jóg. Ah, waaw commencé na xam nga wax yi rafetul. rafetul ci ay waaw. ci kër ak fu waxee ne doom daggitu yaayam la tey am na ñeneen ñu lëkkaloo ba ñun. Mhm. pare nañu. voilà te kër googu nag. la doomi baayam moom moom doomam boobu. ay doomi baayam la nekkal ci kër gi. Ah. ñoo xam ne ñoo bokk baay. waaye bokkuñu ndey. voilà léegi xam nga. ki wax loolu doomu baayam la wala jàmbur la moom. Euh, ki wax loolu moom jotuma leer ne ma doomu baayam bee ko wax walla keneen <laughs> waaye nee na ma ku dëkk si kër gi daal mm. moo wax loolu. mais bi mu waxee loolu commencé ma kii na ma nag léegi fii moom bu fe bu fe sax. Mm-hmm. dàq ko foofu. Mm-hmm. mu mu génn foofu dem si beneen kër ay mbokki euh, jëkkëram. mu dàq ko foofu. waaw ki nekkoon foofu parce que wax yi mu koy wax. maire bi mënu ko dégg ko waaw te mënu jékki-jékki ñibbi. ñibbi waaw ndax xam nga ci lu doy waar nee na foofu. mu yeneen dëkkandoo yi foofu. mer nañu nee nañu ko fekkonte ne dangaa wér dinañ la dóoral suñu bopp. Eh. daal di woo papaam moom ku ku jigéen ki. waaw ne ko sa sa doom bi li mu wax yaayam. loolu waru koo wax rafetul. Ah, war nga si wax parce que ñun su fekkonte ne dafa wér comme ni ñu ko opéré moo tax. Ah, waaye bu wér dañu dal si kaw. kon kooku am na nu ñu ko jàppee woon. am na mhm. nu wax jooju neexu leen. Mhm. voilà ndax foo gis ñu doxe ne. Mhm. ak ñee ca des doxe na ne. waaw mooy ñu rafet. macha allah waaye ci biir loolu nag. moom yaay ji bi mu demee dëkk dëkk ci ñeneen ñi yeneen dëkkandoo yi moom muy woote foofu naa leen maire bu ban boobu yéen a ko fat foofu eh, eh, eh, lu ngeen gis na ngeen xam ne rek yéen a ko teg seen waaw commencé waaw léegi xam nga loolu day doy waar mu ne moom yoratuma nekkatuma si moom ci ñu ma nekk mu ngi yàq sama dër di wax wax yoo xamante ne kaddu yu ñaaw la di ko jëmale ci man mm. te ñooñu di ma xeeb ci koo xamante ne nii man su ma nekkoon ku ku ku ku ñuy tooñ kon moom laay jëkk jël bala moo am doom bu ma di ko jël moom moom moom bu tooñee yaayam sa setu si la ñu koy wax de mu ngoog waaw ah. parce que boo boo tamee bañ di ko daw yow fan nga war a mën a toog yow ba setal sa bopp kon <laughs> yooyu yëpp mooy li nga xamante ne si dañ ne seytaane waxul dégg waaye yàq na xel ci kaddu boobu ju tukkee ci dëkkandoo boobu moo mm-hmm. tax sooy wax ci diggante mm-hmm. na ngay bàyyi xel bu baax li ngay wax li ngay wax te loolu gis nañ yàgg nañ ko fi gis xam naa du ñàkk ñu gën ko yaatal que mm-hmm. dëgg yàlla ak sët jël weeram jox ko wala koo xam ne sax jege ñaalal bu kii nga jël ween jox ko même bu amee sew sax gis nañ koo xam ne namp mu amandoog doom ak ah, kam mu nekkal te ñu jege lool mu jël weenam jox ko uh-huh. rawatina nag koo xam ne nag amul sax soow genre xeet naxaate la lu ñu fi gis la mhm. ndax loolu itam mu war naa mën tax ñu dëkkal la foo dëkkul am déet mhm. léegi nag bu soobee borom bi subhaanahu wa taala ah, dinañu ko wéyal ñu dal di tàggatoo si pàcc bu njëkk bi waaye da ngay desandi ndax Samba Jaxate réveil mi soné wu maanaam déggoo ma de dafa biddanti nangul nañ ko ko yaa may gunge ak suñu gan amul benn problème mhm. waaw kon baax na kon ñu jàpp ne rek eh, loolu lu ñu tënk la ci histoire bi nga xam ne moo xew Euh, borom nag dañ ko war na dalal. waaw incha allah ñu koy xaarandi waaw koy xaarandi. xam naa bu fekkente ne kii itam. ëllëg su sa juboo yàlla. incha allah bu ko jot maye. mën naa teew. lu ñu fexe rek bu mën a am. loo mhm. xamante ne dina toog. Mhm. ñu jël ay taatan ay kadoom. Mhm. ci lu gën a leer ci ci ci image. incha allah xam ne loolu dina ko mën a wéyal. d' accord kon ñoo ngi gërëm ñëpp di leen jaajëfal. ci wax ji lépp lu ci dégg rek ñu xam ne sunu matta di la. tabarkalla lépp lu ci jóg ñu sant ko suñu borom subhanahu wa taala di jaajëfal ñëpp. jërëjëf leen pàcc bu njëkk bi la dem si deuxième partie bi incha allah euh, pàcc bu njëkk bi la woon waxtaanu ay bés bi ba tey seen programme yor yoru alar ba tey ji euh, soxna Thiaba feggoog Baye Mor Jono Dali